bienvenue, chers téléspectateurs de la 2STV, la première chaîne privée du Sénégal. Ravi de vous retrouver encore une fois mbokk téléspectateurs yi ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax ku ci nekk rek ñu ngi lay ne jàpp di la nuyu di am contentement ak mbégte di leen présenter li nga xamante ne moom émission elles sont toutes belles di seen émission préférée comme ni ñu koy defee chaque week xam ngeen émission la bi nga xamante ne day ñëw teral ak suñu ay partenaires yi nga xamante ne ñoo ñuy tout au long de émission ba tax na émission bi gis ngeen dafa changé concept depuis lors pour participer ci c'est très simple chaque fois dama koy répéter parce que dama bëgg ngeen di gën yokk seen wërsëgu gagnant pour bëgg ànd pour mën a ànd ak man toute la journée ma nekk ak man ñu passe une journée formidable euh, ak sama équipe donc nag euh, gis ngeen pour bokk ci da seen photo seen numéro téléphone bu ngeen nekk suñu ay belle du jour ñu ànd ak yéen daal leen di teral comme ni koy defee nag à chaque fois man maa ngi fi nga xamante ne moom mooy Grand Yoff voilà arrêt Bignona voilà si je me trompe pas c'est là-bas donc sama belle du jour tey fii la dëkk elle s'appelle Aïda Diouf sans plus tarder dama koy daal di woo moom itamit mu daal di may rejoindre fi nga xamante ne fa laa ne bu ko defee bu ñëwee ñu daal di wéyal suñu émission def comme ni ñu koy defee à la coutumée ay ci Seydou. Allô Allô, bonjour. Bonjour. Ça va, Aïda va. Tu vas bien Bien, merci. Et toi Aïda, kontaan nga de da nga xanaa da nga xam kii wax ak yow. xam naa kay bébé chou la. <laughs> moo tax nga kontaan. moo tax ma kontaan ah, bi dina que tey moom gis la joie de vivre ah. non émission bi day wàcc tey. <laughs> Aïcha kon maa ngi nii ci arabique ma waxoon naka la def ak sa ah, d'accord ma chérie maa lay xaar. ok à tout de suite d'accord. ayca Seydou kon nag je l'attends nee na mu ngi ñëw maa ngi ci arrêt bi mu ñëw ñu tase daal di je pense qu'elle est la. bëggoon naa la ñëw gàttandu mais boo tali bi moo tax <laughs> tu vas bien. ça va bien ça va. ça va bien merci. na yaa ci jàmm. ay ca tourné xool sama caméra mais toute jolie. merci beaucoup chérie. <laughs> tey naka sa journée naka nga yeewoo. ça va na naa si jàmm moom. Ah, macha allah. pare nga daal pour ànd ak man. pare naa pare naa ànd la journée. Ah, ah, mhm. d' naka nga def ba participer ci émission bi. en fait pour ci émission bi c' est simple. Mhm. da ngay si page Mess Dalla nga daal di indi page bi. aussi envoyé say photos daal di envoyé téléphone bu ko defee di nga a participer si émission bi nga xamante ne mooy Elles sont toutes belles. en tout cas ni nga ko waxee daal noonu lañ koy defee donc kontaan nga tey ma jël la nga nekk ak man. non kontaan naa trop kontaan man tam kontaan parce que je suis très ravissante jaar nga ma ci yow. merci beaucoup bébé. <laughs> Aïcha mi ngi noonu mbokk téléspectateur yi elle s'appelle Aïda Diouf elle est la d'aujourd'hui ñu def comme à l'accoutumée nga xamante ne moom mooy si plaza jëli suñu ay mesures nat ma ngoog chers téléspectateurs ñu daal di wéyal émission bi comme ni ñu koy ne moom moo ci Binta et Beno daal di dem natt suñu ay mesures natt suñu ay fi nga xamante ne moom mooy suñu salon de coiffure on ci ak suñu partenaire leader di Darline tey ñu ngi fi nga xamante ne moom mooy Kër Massar war a seet si waa salon étoile de la beauté donc sans plus tarder damay ànd ak sama belle du jour daal di dugg ci biir salon bi xool lan moo fi am ci lu baax ak Darline aussi ban feeling ak ban greffage tey la ma indil ñu dugg xool di fi am ay Salut. Ça va ça va Magui. ça va bien. yaa ngi ci jàmm ça va bien. naka mu. ça va. naka journée bi ça va allez benn jour taxaw na ci digg bi. Mm-hmm. Magui nuyu naa la. fay naa la. lan ngeen di mbokk téléspectateurs yi waaw maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ku ci nekk sa tur ak sa sant. Mm-hmm. di leen jaajëfal bu baax a baax a baax yéen waa elles sont toutes belles. waaw kontaan naa trop ci ñëw bi ngeen ñëw fii macha allah Kër Massar. ok en tout cas tu es toute jolie hein ah, fi jaar. Aïcha ah. <laughs> <laughs> eh, Magui comme ñu ko defee à chaque fois laata ñuy commence suñu émission. Mm. Euh, Darlene moo ñu fi jiitu ci salon bi te ñu ngi euh, étoile de la beauté. fi jiitu indi bi ñuy defal tey suñu belle du jour. Mm-hmm. tey bon produit la. waaw tey maa ngi leen euh, Yekki Street bi. Yekki Street. waaw. pour war koo defar sama belle du jour. Mhm. bu taar bu jongama bi macha allah tam mhm. neex a defar nii. Mhm. waa donc tey dama ko bëggoon defal euh, raie de milieu. waaw defal ko lu rafet. waaw macha allah parce que moom ku neex defar la. waa soo ko gis nga ne dina ko jàpp. waaw dina ko jàpp parce que client bu ñëwee rek boo xoolee kanam gi rek war ngaa xam ni ko jàpp. effectivement. ayca mi ngi noonu kon Magui ñu daal di lay bàyyi après nga def say feeling ñu xool sans du jour. amul benn problème gis ngeen Magui kaw elle est magnifique macha allah donc bu ma nekk sans belle du jour dina rafet kon tey dinaa ko gëm ndax man je la trouve très jolie donc ñu daal di koy bàyyi rek mu daal def ay feeling ak ay création ak li nga xamante ne moom mooy yekk bu ko defee ñu daal di xool sans du jour naka lay mujjee ak. mag yi bien sûr mu nekk suñu coiffeuse proposé ñu woon li nga xamante ne moom mooy raie du milieu ànd ci ak greffage bi nga xamante ne moom mooy greffage bu am feeling xam ngeen ko di yakus xeet ndax depuis lors ñu ngi leen koy présenté gis ngeen suñu belle yi dañ leen jox ay couleurs yu différentes waaye teewul suñu ay coiffeuse yu différentes ba na ki nga xamante ne moom mooy sama coiffeuse di mag yi dama koy daal di jox kàddu gi daal di koy nuyu mu nuyu leen di wax effectivement lan la coiffé sama bête du jour ak naka la gisee sama greffage maa jaajëfal maa ngi nuyu ñëpp ku ci nekk sa tur ak sa sant. Mhm. plus particulièrement euh, kii Mèche Darlin. Mhm. bi ñëwoon seet si ma tey ma kontaan ci ñoom trop trop trop macha allah. Mhm. Euh, ak sama belle du jour bi nga xam te ne dafa jongoma ba yàqu nii. macha allah waay <laughs> Aïcha Magui tey ñu jox la produit euh, bi nga xamante ne moom nee naa la ñëpp dañ ko bëgg ndax dafa ñëw rek nit ñi adapté ko tellement que produit bi nga xamante ne dafa am feeling waaye itam dafa rafet te ñun dañ ko bëgg ndax longeur bi ak li nga xamante ne moom mooy baax baax yi am ci greffage bi mm. ndax nga gisee sama produit tey di Yaku Street ak yow itam lan nga coiffé sama bête du jour. waaw franchement produit bi moom neex na defar macha allah te kenn nambatul cheveux 38 ak 34. Mhm. ndax yekk yekki ñëw na rek sagal jigéen ñi ñëpp. Mhm. waaw te macha allah neex naa defar te aussi gaaw na trop. méttiwul mhm. quoi. en tout cas gis naa la aussi teg nga ko mais juréwul temps bu bari te soxla woo aussi euh, ay matières yu bëri pour def sa coiffure. danga ñëw rek teg muy prête à l'emploi. waaw te utiliser aussi paquet yu bëri. waa waa doo bi benn paquet bi rek mën nga ci def sa raie de milieu raie de côté mën na dem fu nekk mën na dem dîner mën na dem euh, mariage mën na dem anniversaire. fu la neex rek. Mhm. ñu ko fa yóbbu waaw. te mën nañ ko coiffer aussi mën nga ko teg ba pare coiffer ko def say salañ salañ. waaw mën na ko. Mhm. loo ko bëgg ci moom rek moom mu mhm. topp la. kon noo gisee Yaky Street. waaw macha allah laf cat. laf cat à Yaky moom franchement parler darlin kenn jooyatul benn borom sama jooyatul. waa ndax seen produit de qualité la. baax na yombal na suñu liggéey. Euh, mag yi gis naa aussi da nga maîtriser Darlene maanaam Darlene da ko jël tafoo ko def ko sa yëf. Mm. depuis combien de temps nga commencé liggéey ak Darlene. waa Darlene macha allah duré na presque ba ma ubbee ba tey macha allah maa ngi ak ñoom baax. tamit produit yu ñu mënta indi lay gën a neex. Mhm. mësuñu doo mësa am ay déception ci ñoom. Mhm. franchement parler. en tout cas kon yow qualité bi nga gis ci daal moo la fa bàyyi ba tey. moo fa bàyyi. en tout cas nga xamante ne moom euh, nga tegal sama belle du jour le temps mbokku téléspectateurs yi nekk yàkki la euh, yàkki su am na couleur yëpp waaye aussi dañ leen di fàttali leen li nga xamante ne moom lay jël ndax dafay jël brochine dafay jël fer te bi dem na ba 180 degré tey nag mag yi dafa sentir def redd parce que gis na ne sama belle du jour moo ko gën a jàpp loolu tax wu wuñu ko waaye boo ko jëndee aussi boo ko tegee mën nga ko boucler yaay xool bu la neex nga boucler ci kanam ci ginnaaw katusha ko war nga chaque fois bi mooy rasta bret mhm. mhm. sama élève bi Ndey Si moo ci jaar ak mhm. Aji macha allah dañ ko jël ñaw ko suñu perruque bu baax këppoo ah ko waaw la lu la neex mënul ko def bu la neexee nga léeg too bu la neexee nga

mbokk téléspectateurs yi ak ñi nga xamante ne yéen a safoo seen euh, émission elles sont toutes belles dama leen di rappeler à chaque fois ngeen di dem di ko jëndi ndax greffage la yi nga xamante ne am na feeling am na caac te boo ko tegee li ci gën a neex mooy dangay ngay nekk star ndax gis ngeen tey trois stars lañu star la sama coiffeuse star la sama belle jojo star la Magui kontaan nañu kan ngay gërëm kan ngay sant waaw maa leen gën a kontaan euh, maa ngi gërëm samay waajur avant tout franchement parler bu dul woon ñoom aussi duma egsi fii di gërëm euh, sama client yëpp yëpp yëpp ma kenn di gërëm sama waa famille li ko dalee taaw bi ba caat bi ñëpp maa leen gërëm mhm. waa di gërëm aji mi nga xam ne dafa jóge ba Kaolack uniquement pour euh, elles sont belle bi mhm. maa ngi gërëm daal ñëpp di leen gërëm yéen ñii ak confiance bi ngeen am ci man ba ñëw fii alhamdulilah daal gërëm sama frère yëpp. en tout cas kontaan nañu ci yow ndax bu ñu ñëwee aussi ci yow gis nañu euh, li nga xamante ne moom mooy liggéey bu rafet bi ngay def te dem li ma ci gën a neex mooy dafa am finition ndax man say maquillage ak say salañ salañ neex na ma te soins yi itam am na fi. donc joxeel numéro téléphone bi ak adresse yi pour ñi nga xamante ne ñi ngi seetaan bëgg ci yu baax yi naka lañu def pour ñëw ba mu ngi nekk Kër Massar route boo ñëwee ba ci marché bi boo wootee ci numéro bi muy 77 664 06 06 wala 78 452 50 07 boo wootee foofu allah rab bi dina la indiqué ba nga ñëw fii ñu defal la lu baax boo fi gi raf génn du boo fi duggee daal macha allah di booy génn di nga di nga di nga di nga di nga nice daal macha allah. étoile de la beauté lañu wax. Mm-hmm. ëmb na lépp. boo ñëwee daal di nga mel ne étoile. en tout cas yow yaa ngi mel ni étoile macha allah. Euh, Magui maa ngi lay jaajëfal. merci merci beaucoup à la prochaine. ok Aïcha mi ngi noonu mbokku téléspectateurs yi Magui moo nekkoon suñu coiffeuse gis nga yu baax baax yi nga xamante ne wax na ko fi te it baax baax yi nga xamante ne am na ci boutique bi dama leen ko yéene kon nag daw leen ngeen ñëw ci boutique bi bu ko defee bu ngeen ñëwee du ngeen ko rëccu ndax lépp lépp loo xamante ne rek ça va avec la femme mi ngi fi bu ngeen ñëwee di ngeen kontaan ni leen defal make-up bu baax defal leen soin de visage pédicure manucure wee xeef lépp loo xamante ne daal jigéen da koy soxal ak day tax jigéen aussi rafet euh, ñëw leen ci salon bi bu ko defee ngeen am ci waaye bu ngeen ñëw aussi bu leen fàtte indi li nga xamante ne moom mooy seen greffage darline ndax bu du ngeen nekk donc pour ngeen nekk foog ngeen li nga xamante moom mooy greffage darline kon nag ñu daal di dem fi nga xamante moom mooy euh, si plaza ci Binta Ebino daal di xool ay création ak ay baax-baaxam léegi lay doon atat <laughs> chers téléspectateurs on change de décor daal ne moom mooy si plaza chez lan moo nekk les modèles du jour waaye nag tey décor bi dafa daal di changé ndax bu ngeen ma gisee cadre bi ne fa laa taxaw du Binta et maa ngi fi nga xamante ne moom mooy bijouterie Serigne Babacar Sy tey fii laa ma envie defee sama plateau je suis avec madame Thioune comme ni ma ko defee à chaque fois mu daal di li nga xamante ne moom mooy les modèles du jour madame Thioune salaamaaleykum maaleykum salaam bébé Chou. yaa ngi ci jàmm. maa ngi ci jàmm sant yàlla. toute ravissante comme d'habitude. merci beaucoup c'est gentil. ayca looy doon mbokk téléspectateurs yi lay seetaan. waaw am kontaan di leen dalalaat fii ci Plaza Ebeno. ñëw di leen wan suñu modèle yi comme toujours. Aïcha madame Thioune comme ni ñu koy defee nag à chaque fois xam nga ni plateau bi man ak yow ñoo fii taxaw nag daal di li nga xamante ne moom mooy les sañse du jour. Mm-hmm. tey ñu am ñaar sambal du jour daal di def orange bu am maanaa yow nga génn nañu commencé suñu belle du jour bi. ayca tey dañ ko dañuy utiliser deux tissus. Mhm. ñu ñëwal ko robe coupée à la taille. avant genou yi ñu defal ko ci nervure. Mhm. Euh, manche yi aussi ñu def ci juppiir. Mhm. ci suuf yëpp nekk juppiir aussi mu nekk robe bu rafet. vraiment temps yi ébéno yi la génne mu nekk collection bu bees bu ñu mujjee génnee fan yi donc euh, pour ñi nga xam ne dañuy ngénte. ak takk lépp mën nga ko yendoo et donc mu nekk modèle bi rafet aussi. li ma si gën a neex mooy dafa classe en fait bëriwul ci mbir ci mbir amul càmbar càmbar dafa ñëw rek simple. gis nga yii la Ebeno di def. en tout cas c'est très joli te jàpp na ko et couleur bi aussi ça va avec elle. Uh-huh. bu ñu jugee ci moom en tout cas man j'adore sa robe lii moom xam naa ne yaay daba moom dina ci def ndax dafa bëgg yi kon nag yow bu ñu jugee ci moom dañuy daal ñëw ci yow yow itam nga def sa vert kenn demul nga des waaw xam nga dañoo bëgg Sénégal. Mm-hmm. te Sénégal bu ñu waxee Sénégal ne vert Sénégal. Uh-huh. donc euh, mais vert bi c'est un peu clair. Mm-hmm. aussi ñu utiliser les deux tissus utiliser daal di defaale aussi broderie ordinateur. Mhm. mais aussi ñu def ci ay jeux. Mhm. yu bëri c'est-à-dire nervure bi euh, jour yi ñu ci defaat mu nekkaat tamit robe à bu rafet. Mhm. aussi donc mooy comme ni ma koy waxee rek ku am ngénte ku am mariage aussi mën nga ko sol mu nekk ay rob yu rafet simple ba bëgg a dee du xat du la du la sonal. lu rafet daal da nga ciy def waaw avec aisance mhm. waaw. en tout cas c' est très joli te man couleur yi moo moo njëkk fraîche en fait c' est des couleurs fraîches te defe naa ne couleur yi dafa ànd ak temps bi donc defe naa ne euh, seen collection bu bees bi daal man saf na ma te xam naa ni seetaan aussi bëgg elles sont toutes belles lool saf na leen. dëgg la mu nekk ay collection yu bees. Mhm. aussi ñu siy def si ay grands boubou yu rafet aussi. ñu ci mhm. def ay couleurs yu rafet aussi. ku ko bëgg gis rek da ngay ñëw fii incha allah nañ la ko wan. ayca adresse bi naam mi ngi jàll au bas de l' écran waaye nga répété ko rek. waaw ku bëgg si modèle yi da ngay ñëw fii ci si Plaza Ebeno war nga dem si 4 UCAM ci gannaaw numéro foire bi suñu mhm. numéro téléphone di 77 918 49 63 ou bien 77 544 92 ñu ngi leen di xaar. ku woote ci numéro yi daal ñu daal leen di guider daal leen di jox ci yu baax yi ñoom itam ñu daal di sañ set. bien sûr bébé si yooyu ñoom ñoo ñu fi tax bu ñu ñëwee rek. dinañ am ñu bëgg incha allah rabbi. man tey sa tey sa tey sa sañse man maa la ko bëgg mayel. Ah! waaw ah, waaye dafa am ku ma ko tuddee woon ba pare. sa xam nga kan laa ko bëgg may. kan nga ko bëgg may monsieur Thioune. ah bébé si dangaa moom may naa ko monsieur Thioune. waaw lii bu ñu tegaat keneen. <laughs> ii sañu ma ci teg keneen. ayca <laughs> mi ngi noonu madame Thioune maa ngi kontaan bu baax a baax di la jox euh, rendez-vous semaine prochaine incha allah. bébé si di rappeler ne aussi yow bijoux yi nga assortir ak sa robe aussi moo fi jaar bu leen ko fàtte nag mhm. mooy li may wax chaque yi euh, madame Thioune moo nekkoon euh, gis ngeen ni mu bëree salañ salañ monsieur Thioune xam naa ne kontaan nga ndax verre bi moom xam naa ne kontaan nga ci ndax man sama xol sedd na ci macha allah ngi noonu nag mbokk téléspectateurs yi gis ngeen madame Thioune li nga xamante ne wax na ko tey ci ay collection yu rafet te ay collection yu bees macha allah avec des couleurs vraiment fraîches donc ñëw leen fi nga xamante ne moom mooy Sea Plaza wala ngeen ñëw Scat Urbam bu ngeen ñëwee ñu daal leen di guider ki nga xamante ne moom mooy madame leen guider ak Sophie madame Thiam ak euh, bi nga xamante ne moom mooy bin euh, équipe bu Binta ñu daal leen di guider wan leen li nga xamante ne moo dem ak yéen bu ko defee ngeen daal di nekk star waaye émission bi jeexagul ndax balaa muy jeex damay toog ak sama belle du jour daal di en beauté ak moom léegi lay doon. voilà mbokk téléspectateurs yi on se retrouve ci suñu plateau final bi nga xamante ne dañuy toog nag daal di finir avec suñu belle du jour mu daal ñuy wax impression yi nga xamante ne am na ko tey toute la journée comment ça s'est passé sa journée produit yi nga xamante ne jox nañ ko ko tey est neex na ko robe bi sol neex na ko bijou bijou yi aussi est neex na ko loolu yëpp léegi laa ci am lu ma ci leer ndax mi ngi toog ak man on va finir en beauté sama belle du la. fay ah maa ngi cool ça va yow kay la laaj si va. si si si va bien si fat si sonnoo. si tout va très bien. Ah. parce que tey moom dama kontaan parce que journée bi neex na foo nañ kaf nañ et tout. Mhm. yaa ma gën a xam maana ci ay ah, waa Mèche daal di. daal di ma tegal greffage bu am maanaa gi macha allah. en tout cas ça te va très bien. merci noo gisee greffage bi. en fait euh, Bébé Chou euh, Yaka Strike euh, dafa nekk defaat bi nga xamante ne macha allah dafa lisse. Mhm. en plus dafa neex a coiffé. Mhm. vraiment c'est coiffer. mais est-ce que c'est léger léger na sa bopp. si si si c'est léger oui. Mhm. parce que en tout cas mi ngi sa karaw la en fait. donc kontaan nga ci greffage bi. si kontaan naa trop macha dama bëgg nga def ko sa yëf. tënkee parce que couleur yi bëri na. am na rouge am na marron am na noir am na violet comme bi nga teg. Mm-hmm. yow yaa xool bu la neex nga teg ko donc saa yi boo dindee bii rek tegal boobu. bu ko defee change ngay nekk star. d' accord incha allah <laughs> en tout cas c' très joli. Binta <laughs> Ebeno aussi daal lay génnee ci robe bu rafet macha allah. waaw gis nga bi du chou. ak couleur bi def la jàpp. waaw gis nga couleur bi daal mu ngi nii macha allah. Mm-hmm. yaa ma gën a xam. kontaan nga ci robe bi aussi mais noo gisee bijouterie Serigne Babacar Sy aussi. jox na la ay bijoux glamour macha allah la oui moom macha allah. Mhm. voilà yow daal kontaan nga ci bopp bi yëpp non tey moom dama kontaan macha allah dama kontaan. Mhm. lépp ni macha allah. kontaan nga daal yow daal macha allah <laughs> gis naa daal da nga kontaan ba mënoo sax wax. si <laughs> ah <laughs> elles sont toutes belles est neex na. si vraiment dafa neex. neex na yow mën nga wax parti bi la ci ba parti bi la ci gën a neex ci journée bi ñu ànd man ak yow yëpp. non bañ ba. demee salon ba demee salon bi. kaf bi ree bi ah. ñu la di nuyu au passage ñoom tam ñu nekk ñu adorable. macha allah ay mhm. Aïcha euh, mbokku téléspectateurs yi lii nag moo nekk suñu objectif émission ah, bu ñu àndee ak suñu belle du jour li ñu bëgg mooy mu kontaan comme nee na kontaan na bo candidat parce que kon mën naa ne atteindre nañu li nga xamante ne moom lu ñu bëggoon. Uh-huh. donc euh, mais Aïda. Uh-huh. Euh, comme ni ñu ko defee à chaque fois gis nga ne balaa may quitter ak sama bët du jour ba di rendre antenne bi damay waxtaan ak moom ci benn thème bi nga xamante ne moom moo koy choisir wala euh, benn sujet actualité boo xamante ne soxal nañu ñun. Uh-huh. donc bu ma laajte woon tey ci loo bëgg ñu waxtaan loo xamante ne am nga ci envie wax lan lay doon. Um, Bébé Chou xanaa c'est wàllum agression. Mm-hmm. parce que agression dafa nekk phénomène bi nga xamante ne dafa fréquent maintenant. Mm-hmm. Euh, chaque jour dans les médias da ngay dégg kaaw bees. Mm-hmm. donc su ma la déggee bu insécurité totale bi nga xamante ne am na ci dëkk bi daal moom yow moom ngay euh, moom ngay déplorer. voilà. et la manque de lumière aussi. à cette locale. ak lumière yi nga xamante ne amul ci yenn secteurs yi. lëndëm bi voilà parce que avec ça aussi day tax insécurité bi day gën a bëri aussi en tout cas souligné nga lu am solo. donc yow loolu euh, lan nga ci wax ñi nga xamante ne ñoom ñooy suñu autorité parce que ñu ngi seetaan ñi nga xamante ne ñoom ñoo yor wàllum woowu yow ban message nga leen di wax. li ma leen ñaan daal mooy dañoo soxla sécurité vraiment loolu lay wax. Mhm. soxla sécurité pour mhm. ñu bàyyi ci xel. ñu bàyyi en tout cas suñu ñeneen lu am solo muy insécurité bi nga xamante ne am na ci dëkk bi comme ni mu ko waxee ñëpp ñu ngi koy joytu chaque jour nga dégg cas bu bees insécurité nag ci ci wàllum ci ci wàll ci wàll bu ne kenn mënatul génn kenn mënatul dem fenn tellement que agressé agression yi bari na rey yi bari na euh, yi nga xamante ne daal mooy ñaawteef ci suñu dëkk bari na donc li muy wax mooy ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk suñu suñu suñu suñu ay autorité ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci wàllu woowu ñu bàyyi ci xel bu baax naam sax yéen a ngi koy def yéen ngi liggéey yéen a def li ngeen war a def waaye ngeen gën ci bàyyi xel te aussi su duñu lu am solo mooy euh, manque de bi ci ci ci ci yenn gox yi aussi xam naa ñi nga xamante ne yor wàllum woowu gën ñu ci euh, voilà gën ñu ci kii nañ ñoom dañ ñu jàppale bu baax ndaxte aussi bu ñu jàppalee euh, mooy gën ci ñun bu ko defee réew mi jëm kanam ndax insécurité demalul réew kanam mhm. euh, kan ngay gërëm kan ngay sant ba fait euh, maa ngi gërëm samay parents di gërëm aussi waa mère Daline mhm. di gërëm aussi magi bi nga xamante ne moom ma yàkkee ni mhm. di gërëm aussi Ebeno voilà yaa ngi gërëm ñooñu daal ngay gërëm ba ba doo génn ñu naan la yaa dem ci tare ba te gërëm moom sa xarit yi ah amoo xarit boo mën gërëm si maa ngi gërëm Mass borom Sen Sénégal. Ah. <laughs> di gërëm samay sœurs. ah waaw quand même ah c'est la moindre des choses ah, parce que ñu lay seetaan aussi gis nañ la nga nekk tey reine du jour. nga defee un nga da nga a stressé non bul stressé man instant bi je suis très kon gërëm nga ñëpp daal sant nga ñëpp. bàyyi ma kenn daal bàyyi ma kenn kulim juum ñëpp laa gëm cat ba cat. non kulim juum non kulim juum voilà. <laughs> Aïcha ngi noonu nag ma daal di lay jox kàddu bi nga xamante ne moom la la Darlene jox. baal ma ci càmmoñ bi. d'accord voilà Darlene neen dafa bëgg nga nekk star à chaque fois. donc mooy sa cadeau bu ko defee boo tegee sa Yak nga tegaat. d'accord def ko sa yëf. ñu ngi lay gërëm bu baax en tout cas j'ai passé une journée formidable avec avec toi. xam naa ne du yam fii dinañ ko gën a yaatal. incha allah ñëw Fall. Aïcha Mangok mbokk téléspectateurs yi elle s'appelle Aïda moo nekkoon ki nga xamante ne moom mooy sans belle jour ma ànd ak moom toute la journée elle est très adorable ah gis ngeen euh, elle est très radieuse avec euh, li nga xamante ne moom mooy greffage bi ñu ko jox tey di yakus xeet robe bi nga xamante ne Binta jox na ko tey avec des bijoux vraiment xamante ne moom mooy bijouterie Serigne tamit suñu partenaire donc ñu ngi koy gërëm bu baax a baax mbokku téléspectateurs yi yéen itam ñu leen di gërëm di leen sant sama ay partenaire nag du ma jug ci di leen gërëm ndax ñoom ñoo jàpp ci émission bi ba mu yemb macha allah ki ci mel ni Darlene aw ma fayam à chaque fois bu ma ñëwee moom tamit bu ñëwee du moins indil ñu produit bu rafet jox ko suñu belle du jour mu daal di koy teg nekk star tax na jigéen ñi léegi ñëpp nekk na star donc pour rappeler na man aussi li nga xamante ne moom laa teg sama moom mooy Nadia gis ngeen Nadia greffage bi nga xamante ne dafa nga ko def nu mu la neexee te couleur yi bëri na am na couleur yu différentes moom tamit am na noir am na marron am na rouge am na blonde am na lépp loo xamante ne jigéen da koy soxal donc mi ngi noonu Nadia greffage la bu am maanaam dem leen ci marché yi ngeen daal di koy ut bu ko defee ngeen daal di koy teg fël-fëlaale sànni ko def lu leen saf wala bu la neex aussi ngeen dem tànn bi nga xamante ne moom mooy yakus xeet pour rappeler ne aussi greffage bi dem na ba 180 degré te longueur bi aussi gudd na donc ñu ngi koy gërëm bu baax baax moom ne moom mooy Binta Ebeno saa bu ñu ñëwee mu jox ñu ay tenues yu rafet macha avec des couleurs vraiment fraîches des fois aussi mu génn ci couleurs yu chaude am maanaa am classe aw ma faye moom Binta di remercier aussi ki nga xamante ne moom mooy bijouterie Serigne Babacar Sy moom itam saa ba mu ñëwee mu jox ñu ay bijoux glamour daal di def sama belle du jour ren aw ma faye moom tam di leen remercier yéen ñi nga xamante ne yéen safoo la stv la première chaîne privée du Sénégal on vous donne rendez-vous semaine prochaine inchallah ça sera présentatrice. Portez-vous bien et restez scotchés sur les programmes de la 2STV. Gardez le sourire et la pêche.